kadi aɗi jolli ala albarqi kay melax ga alastay kadi aɗi jolli mo melax ga fu mu jollee di musul larbaaxi ci niiru tonoya waaw lan mooy melax gi lana jolli lana niir yi luy tono gi yaani kama kaana albarqu mulaziman li musoni amtar ustuira hahuna insibabu rahmati ilahiyati ala alxalqi wastuira ismu albarqi lilxaqiqati almuhammadiya لملازمتها لها كملازمة البرق للأمطار ومثل الأرباح هي الرحمة الفائضة من حد الحق على خلقه ويعني بها هنا العلوم والمعارف والأسرار والتجليات والأنوار ودقائق الحكم وما لا ينتهي إلى صاحبه نانا صلى الله عليه وسلم بوبي سيني مو محمد موي ملخغا ملخغا جولي تنيرو طنيا kama kaana albarqu mulazima lil amtar xam nga fu mu xiire fu mu xiire ba ñëlingaan lu muy def du day melax bu melaxee lu muy def day taw sallallahu alayhi wa sallam mooy melax gi bu melaxee rek yàlla niir niir bu bu niir yu ñëwee di Muhammad yàlla melax melaxu yërmande bu melaxee melaxu yërmande Muhammad ko bas mu taw tawu xetal nee na li nga xamee ni niir ak melax noonu la taxoog taw mooy Muhammad insibaabu rahmati l ilahiyati ala xalqi yërmande li nga xam ni ma asara rahmaanu aw yursilu fi rahmatin tasaadu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi fi kulli ma yatasu aw yashmalu illa wata al mustafa abdoho nabiyo muxtaaru mursalu li nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam benn yërmande du jóge ci kaw wàcc ci suuf te ñëwul ci Muhammad benn yërmande du jóge ci suuf jëm ci kaw te jàll ci Muhammad moo tax Muhammad musul lar baax lépp loo xam ne yàlla nga koy bëbbal ci yërmande di ko jox ci doomu aadama njaayi ci Muhammad la ko jaarale kon nag Muhammad barqu ba daal mooy xaqiqatul muhammadiya waaw melax ga mooy xaqiqatul muhammadiya yéen a ngi ma dégg xaqiqatul muhammadiya mooy melax ga musul lar baax yi mooy yërmande ja dama ni xaqiqatul muhammadiya mooy barax ba mooy barax ba mooy melax ga jëmu Muhammad albarqi lastaay di monsieur Larbaax yi xaqatu Muhammad yi ci boppam mooy barqu ba mooy melax ga ah laxmadiya ga ak ahmadiya waaw góore waay daf may laaj diggante Muhammadiya ak laxmadiya diggante Muhammadiya ak laxmadiya téeméeri doxi leer dox na seen diggante diggante xaqatu muhammadiya ak xaqatul ahmadiya téeméeri doxi leer dox na digganteem moo tax sama maam ni bil xadratayni gabantum ahla tijaani xaqatu muhammadiya xaqatul ahmadiya naatiqaha wa saamiha wa mutaxarikaha barxu boobu nga xam ne mooy xaqatu muhammadiya mooy muhammad boo gisee gis melax boo gisee niir gis melax léegi gis taw sallallahu alayhi wa sallam di xaqatu muhammadiya bu taxoog sama waa ji rek mu yàlla mu bëbbal ana lu muy bëbbal yërmale ku mu koy bëggal ci suñu kaw bi musular baax yi nag waaw musular baax yi mooy lan arrahmatu lfaidati min xadul xaq ila xalqi yërmande yi nga xam ne day bëgg jóge ci yàlla ñëw ci nun mooy tanaya waaw bi mu sooy lar baax yi ci niiru tonaya waa tonaya yan la marchandise laam ceeb laam dugub laam weñ laam xaalis laam lan la day lay la ma tori waay wa yaani biha huna العلوم والمعارف والأسرار والتجليات والأنوار وتقعد حكم أي تولى يا عقوب marchandise mi lu mu yowwaa ci niir yi xam-xam yi sekkar yàlla yi yi feeñ yi leer yi li sew yi ak yu mënee sa wax ya fokkana almaaliati li kulli mutaaridin min albuxaari wal awaani almaaliati mooy aji fees ja li kulli mutaaridin ñel bépp aji gaar min albuxoor yi ci géej yi wal awaani ak ndab yi waaw waaw luy boxoor luy awaan gaar-gaar yee yana luy ndab yee géej gi li ku li mu taar gi ñu lépp aji gaar fu mu gaar minel boxoor yi ci géej yi wala awaan yeeg ndab yi waaw luy géej yi luy ndab yi ma dema taarut ba imma lil saaliki wa imma lil majdoobi بالواسطة أو بدونها والبحور الأنبياء والأواني الأولياء والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم هو الممد لجميع الأنبياء حتى امتلؤه وسرى منهم الفيض للأولياء فاستمد منه كلهم هو الممد الواسطة وغيرها nee na gaar gi mu wax ci géej yi ak ndab yi mooy lan sallallahu alayhi wa sallam gaar gaar ga benn nga nekk koo xam ni da ngay sóobu wala nga xam ne ma jóob nga boo def saalik wala ngay meg suub yëpp sallallahu alayhi wa sallam moo def seen diggante ci géej yi ci géej yi ci géej yi ak ndab yi en luy géej yi nag mooy yonante yi en luy ndab yi mooy wali yi yow saalik nga waaw mbay doon def saalik nga ngan guy soog a ñëw nag mëj sóob la waaw yow saalik nga saa beese mëj sóob la xaa yow doo saa beese yow doo wañu di kay wañu nag mooy mëj sóob sallallahu alayhi wa sallam nag géej yi mooy yonante yi ndab yi mooy waliyu yi sallallahu alayhi wa sallam nag moom huwal mumiddu li jëmi leen bi yaay dafa ni sallallahu alayhi wa sallam moo leen yonent yi moo leen tëbb xatam taloo ba ñu fees dell bu ñu feesee nag wasara miin wal fadal yi lew li yaay dégg nga sama kàddu sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi moo leen di tëbb bu leen tëbbee tëbb ba ñu fees dell nag bay tuuru waliyu yi dëkk dëkkandiku dëkkandiku yooyu ci ndab yu nag ñooy wali yi moo tax Cheikh Ahmad Tijaan ni wa kullu ma faada nuuru wa baraza min xadrati ilaahiya tatalaqaahu daati sidi salaa sallam wa kullu ma faada wa baraza min daati sidi wujud tatalaqaahu dawaati lambiyaay wa kullu ma faada wa baraza min dawaati lambiyaay tatalaqaahu daati wa min yatafaraqu ala jami alalamina min ladun aadama ila nafaqi fusoor moo tax Cheikh wax ni cheikh nee na waxtu woo xam ni bëbb na leer ga feeñ jóge ca yàlla jóge ca yàlla laa wax son maam mooy taataan bu sa maam taataanee yonent yëpp taataan bu yonent yi taataanee man cheikh maay taataan te su ma taataanee kenn du taataan ku ñam maa la ñamal buubu sa bay wal cheikh nee na ونورك لامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان شيء ونورك السلام اللامع بدأ يجلك بدأ يملأ الذي دغ خمني ملأت فيصل nga xoyaw yalla bi ca leer ga kawnaka nekk sa alxaayat bi la ji peeg bi markasil fuhumi ci barabu ci barabu palaas ya caay dëggal maanaawul këwnul xaayit wala amrul ilaahi rek teeg gi ak nekk gi ak barab yi nee na dara lu dul peegu jëmmu yàlla ga alladi aqaama allahu fi zawahiri lwujudi fa kadalika al amru mamluun bi nuurihi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la wa nuurika laami ak sa leer ëllëg yi nga xam ne malaate feesal nga bii jëm kaw nag ak sa nekk xaayita bi may kasi fooy wal ma aani waaw sallallahu alayhi wa sallam moom yëf yi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxal moom moom yëfam maanaam kawnul xaayit huwa lamru al ilahiyu alladi aqaama allahu fihi zawahir al wujudi leer gi nga xam ni amal ga yàlla da ko kuma ci amee la ci boppam waaye nag mu laq mu jaarale ko ci Muhammad mu wiire ko Muhammad wal mu'tabar alayhi bil kawni wal makaan dégg nga faqad al amru mamluun bi nuuri sallallahu alayhi wa sallam mbir mi dañ ko feesale ci leeru Muhammad loolu la ñu xaalame bil kawni wal makaan barab baat nekk gaa gi lépp mooy leer gi nga xam ne yàlla feeñ feesale na ko leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba leer ga laal nu ca nun nu bokkaale ca allahuma salli yàlla nga dolli xéewal wasalim te nga dolli wóolu ala ayni alxaq ci jëmmu dëgg ga ci jëmmu dëgg ja ana kuy jëmmu dëgg yaalam ana alxaq lahu itlaqaani itlaaqu alxaq min xaysu zaat wa itlaaqu sifaati zaat gaa ñi affaire bi ngoo ko aynu alxaq له إطلاقان إطلاق الحق من حيث ذات وإطلاق صفات ذات boyal dëgg joo xam ni jëmm ja ak boyalu melaw jëmm ja ndax fa in alxaqa min xaytu zaat li an alxaqa yuqaabiluhu albatilu min kulli wajhin te fa alxaqu almaadu laa yunaasihu albatilu kama qala shaahid ala kulli cheyin maa xala allaha baatilu wa kullu naimin la maxaalata zailu jëmm ja ak jëmm melo ja boyal gi ñu boyal dëgg ga ci jëmm ja ndax dëgg moom du dëmm dëgg moom du wuutanteeg neen mukk ci bépp anam te jëmm yàlla ju sell ja kadi ku ñu sellal lu dul yàlla rek neen la moo tax waa ji wax ni ala waawee kulli cheyin lépp la maa xalallaa lul yàlla baatilu neen la wa kullu neen bépp xéewal zailun aji dañ la laa maxaalate te nag alladi cheikh saa sallam bi sidqi wa taxqiq moo tax sallallahu alayhi wa sallam ba mu gisee bayit bi dane ah kii xam naa jaayalee moo ko wax waaye daal bayit bi daal ànd naa ci dëggal naa ko aha allati tatajalla minha urush al aqaiqi ay la xaqilati ba nga xam ni tatajallaa dana feeñ minaa ci moom urushul aqaayiq gàngu ne dëgg-dëgg ya waaw urushul aqaayiq gàngu ne dëgg-dëgg lana koy ni ci Muhammad te Muhammad di jëm ma dema gaaji minaa urushul aqaayiq gàngu ne dëgg-dëgg ya ma salaa seen di jëm ñu di ko melal lu koy indi gàngu ne dëgg-dëgg mën naa am atajalli huwa zuhuru mooy feeñ nga ma feeñ fépp moom Muhammad feeñ na ci àdduna feeñ ci àlaaxira ba demee ba sax Muhammad a nga feeñ bu dee ci biir ma nga feeñ bu demee man xiyaam ma nga feeñ fépp la feeñ moom salaa sallam feeñam yemul ci àdduna feeñam mi ngi ci doj yi feeñam mi ngi ci kekk yi feeñam mi ngi ci biir suuf feeñam ma nga bar sax feeñam ma nga aljanna min awla sul aqaayiqi nag istiaaratun badiiyatun la atte bayaan la gaañi istihaaratun badiiyatun la istihaara badiiya la waaw waaw ka zeydu ne daaribu raasil jaani dégg nga sama waaja ka zeydu ne daaribu raasil jaani ah ah ah ah réew baa ngi toj waaw waaw ah waaw waaw waaw waaw aha kay man nañu nekk oroche waaye nag dem ñëw bàyyeeguma di ma dem yaalam foor yi déglu leen ma bu baax nee naa orochul aqaayiqi bopp yaa ngi bëgg a toj te foore boo ko waxee lu mu xamul du ree day mer bu dee lu mu dégg day ree ci nga xam ne dégg na matalama waaye déglu leen ma gaañ mi naa orochul aq yaalam أنه لما كانت كل حقيقة مطوية على ما لا غاية له من العلوم والمعارف والأسرار والمواهب والفيوض أطلق عليه عروش من هذا الميدان لأن العرش محيط لأن العرش محيط بما فيه في مجميع المخلوقات أن العرش هو غاية رفعة والعلو والشرف من المخلوقات في علم الخلق وكان الحقائق في غاية رفعة والعلو وشرفه لأنها برزت من حظ الحق الذي هو لا غاية لعلوه وشرفه نينا صلى الله عليه وسلم بوغي سنترك عروش الحقائق xam nga ngaan gune yi ca ngay toog ca ngaan gune koy teral ca nga koy teral ngaan gune la ngay def ci koo bëgg a defal da nga koy defal sallallahu alayhi wa sallam nag mooy arash nga ngune googule moom arash boobule dafa teeg bi maa fi jëmi mbir maxluqaat lépp lu mbindeef yi lépp lu mbindeef ci seenu kawe seen daraja seen tedd nga seenu amal yépp muhammad a ko teeg kon muhammad mooy sunu arsh li nga xam ne baa mee sëb néeg boo amee sam néeg def lal def armool def chaise wékk say yére am déet fab say photo def ca fab say lal def ca muhammad nag mooy sunu aras amal gi nu am muhammada bu ñu tëbbee muhammada bu ñu joxee daraja muhammada bu ñu joxee leer muhammada bu ñu leen yërëmee muhammada kon nag ma wala sunu ataaya aynil maarif yi nag kiy jëmmi xam-xam ya gaa ñu dafa dikk na di waay waa xam-xam ya ne yaani annahu law kaanat almacaarifu alilahiyati almufaadati ala alxaasati alculya min annabiyina walmursalina wallaqtaabi والصديقين والأولياء كلها فعيقة من حقة محمدية محمد مو جم خم خمية نكت mboolem yonent yi mboolem yi ñu yónni ñi yi ñu solo te yónniwuñ leen ak yi ñu solo te yónni leen ñi téeméer foofu ñett ak mboolem laxtaab yi ak ñi dëggu ci wàllu yàlla ak mboolem wali yi ñëpp ñëpp ñëpp xaqatu muhammad yi lañ leen di tëb yufaadu min xadr xaqi xaarijan an xadrati muhammadiya te kan fala chea mufaadun من المعارف إلا وبارز من الحق المحمدية فهو صلى الله عليه وسلم خزانتها وينبعها صلى الله عليه وسلم دال lépp loo xam ne yàlla nga koy tëbbee muy sekkare na mu ko waxe woon wala muy feeñ ci xaqatu muhammadiya mu jëm ci doomu aadama wala mu jëm ci nit wala mu jëm ci malaaka ak ku mu doon sallallahu alayhi wa sallam tax ñu tëbbi la loole ay neen maarif moo tax mooy moo jëmee xam-xam ya àllaqwa mi nag déggal alaqwam ka di aji dëgëru sax ak alaqwam ak ka di gën jaa maandu ak alaqwam ka di gën jaa dëgëru taxawaay nee na maanaahu nag annahu jaarin fi majaari al adli al ilahi al aqwam ka di gën jaa maandu al aqwam ka di aji gën taxawaay aha huwa sifatu tafdil nee na nag dégg nga de siraatika ci sa yoon nag attaami bu daa ji mag al asqam al asqam siraatika yoon sax attaami bu daa ji mat al asqam ba di ganjaa jeng ci lépp loo xam ne jëmul noona ak al asqam nga di ganjaa maandu lépp loo xam ne dañ koy maandu loo al asqam nga di ganjaa jub xocc te du jeng mukk las xam siraati ko yoon wa attaammi la di aji mat alasqami kadi ganjaa maandoo kadi ganjaa sax ak kadi ganjaa dëgër waaw al asqami ah waaw ak aynal maarif al aqwam déet aynal maarif al aqwam ak siraatika taamil asqam yow léegi laxwam ak lasxam rek nga may laaj lasxam ak laxwam waaw góor léegi laxwam ak lasxam loolu nga ma war a laaj marabu lu war a laxwam ak lasxam ah aynal maarif al aqwam أتراتك التامل الأسقم الأقوم أشد استقامة معناه أنه جار في مجال عدل الإلهي لا يعود بوجه ولا يخرج عن الجادة المستقيمة في العدل تكرمله معنى يعني الأول معنى الاستقامة هو المعتدل في التقويم بالعدل جاجل نين الأسقم دفع دو دو وايو مانو كجوك يالله maanaam ko jóg yàlla nag du jàng jëm ci benn anam du génn itam ci cosaan dégg nga day al aqwam wal maana thani huwa su sifatu tafdil bil qiyaami bi xuquq al xaq subhanahu wa taala huwa al maana al marxuudu fi tasmir salaa sallam ahmad laqwam ba di gën ba daa ji dëgër ahmad du turu muhammad ndax afal tafdil la afal tafdil la ahmad ndax afal tafdil la waaye tëgg ba la amee axwam da afal tafdil tëgg ba la amee waaye du maanaama jëlaal ma jiraahu rek axwam dadi aji ahmad du tax nag ñu ne ahmad ma dema wayda sumee Muhammad Salih Ahmed akmalul xalqi qiyaaman bi aadaabi alxadati ilahiya ilman wa amalan wa xaalan wa dawqan wa manazilatan wa taxaquqan wa taqalluqan wa taqalluqan wa taxaquqan fu akbalu min xamlillahi taala min xalqihi min jamil jihaat Ahmed gis nañ ko Muhammad lu tax moo gën a mat ci mbindeef yépp ci taxawaayam ci teggin ci wàllu yàlla ak xam-xam ak jëfe ga ak mbir ak la mu mos ak daraja ak dëgg-dëgg ak jikko ak aju siraatika taami la xam nag gaa ñi la xama de sax laxwam dee na naka mu xam ngeen laxwam ma ñëw ci las xam las xam hee gaa ñi maa ci ngeen mu rëy nee na las xam al aadalu al mubarri min al awaji al aadalu mooy aji maandu ja al mubarri ka lañ set min al awaji ci jeng mooy las xam waaw yaani nag bi maana al mustaqim al muctadilu fi l istiqaamati moom daal moo aju jub moo maandu ci juble ga bila ayu jaajin ci loolu jeng nee na nag ictarada baadu muntaqidina maa ngi dem leen tax di laaj ak di ma déglu ca laa jëm maa ngi ñëw fóor yaa ngi may xool nee na ictarada gaar na baadul muntaqidina leen na way kontar yi haadihi lafdata ñoo tax yàlla naan Muhammad las xam te las xam mooy aji ràgg ak las xam aji feebar ak las xam saafe doxul wa huwa yaalamu annahu min fusaani arabiyati te xam ñu Muhammad ci ngënku arab yi la imma jëhlan ñi kontal benn ñu réere minu yi binay lafaali ci tëgg fii li aw talbisan ala man la ilma indo bil arabia wala ba ñu lënt ci loo xam ne xamuñu ko ci tëggu arab yi pour nag ñu koy ñu di ko naxee nit ñi nag naa na las xam mooy firi jàngoro las xam mooy firi ràgg ba ba bay wasifa ba boole ci wetu kamaal ba sa xel demee ci laf xam sa xol daal di jaxasoo am daal naqar tuuti ci la ngay jàng Cheikh na Ahmad Tijaan nee na Cheikh Ahmad Tidiane nee na la sax mi gaa ñi kontar alaama la ay ma indahu bil arabiyati ngir ñàkk a xam arab dëgg dëgg dëgg dëgg li yusawwisa fikrahu fi awlaadi ak bëgg boo dee sikkar ngay jax jaxal ci sax xol wa gayru mutayin fi ictiraadi bi nu jëlewal anna binaa fala tafdil anna binaa fala tafdil wa taajubu min afala jaizu wa mazhabu sibawayhi fekk afala tafdil nga tëgg ci taajub dagan na ci ngërëm sibawayhi ba dama tafsil wax na ko ci li gën a gàtt sax yàlla wax na ko ci alquran nee na dalikum aqsatu inda allahi aqsatu inda allahi ñëw las xam asxat chemat yàlla nee na dalikum loolu le aqsatu mooy ajamaan inda allahi fa yàlla waaw xanaa yàlla ni nga moo wax waxuma loo xam dafa jële ko ci Muhammad dégg nga nee na nag lii Cheikh Ahmad Tidiane moo wees na dem yoonam moo dem yoonam bu yàgg waaw qaala taala dalikum loola ñu wax aqsatu mooy aji maandu indallaahi fa yàlla yàlla ku mu gën a maandoon teel li annahu fuddila ma faddala fi fadlin sama loolu la ko ki wax li annahu fuddila ma faddala fi fadlin sama yàlla gëntuwul ak kenn lépp moo siraati ko yoon wax al asqami ba di aji maandu ak al asqami ba di aji dëgër ak al asqami ba di aji jub nee na foofu nag dalikum axsatu inda allahi wa kafa bil qur'an xujjatan Cheikh Ahmad Tidiane nee na xanaa booy dee kontal alquran xanaa wala da day tegtal li annahu yastadilu bihi wala yastadilu alayhi wa zakatu hada nag liman la ictiqaada indahu wa lahu fi lqudrati wa tulbidaahu min al awraqi wa yaqifu indaha wa ma man razaqu la taslima Cheikh Ahmad Tidiane nee na képp koo xam ne yàlla wërsëgal na la wammatu wal ictiqaada ak paspas fi awliyaa illah maa samaayi inna haadi salaati lati min jumlatiha alqawlatu wal asqam innahu min taalifihi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmad Tidiane nee na képp koo xam ne yàlla wërsëgal na la ak mucc ak nga bëgg a tawee ëllëg dina la wóor ni lasqam ci taalifu sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk laa min kalaami qurbatina ida sallama haada فلن يبقى إلا من العتق لأن أصل الحصى الإلقاء وهذه كفاية لمن أنصف وسلام اللهم صل يلا ندول الخيول وسلم تندول لولو على طلعة الحق تبين كتير في الدقية بالحق تكتر على طلعة الحق تبين كتير في الدقية بالحق تكتر waaw talaatul xaq mooy lan gaañi ana talaatul xaq lahu maana yaani fiihi talaatul xaq te mooy sallallahu alayhi wa sallam waya daatul aliyatu almuqaddasatu bil xaq defe naa sikkarkat yi moom defe naa ni sikkarkat yi foofu fa la ñuy baleeg fatiha ja fa la gaañi mënante rëpët bii ah defe nga ni defe nga ni tiim tiim julli